bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil anbiyaai wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain allahumma axrijnaa min zulumaati lwahmi wa akrimnaa bi nuuri lfahmi waftax calaynaa bi maxrifati lcilmi wa xassin axlaaqanaa bilxilmi wansur alayna xazaa'ina raxmatika yaa arxamar raximin yaa rabbal aalamiin mbokk yi bàyyi xel ci seen rajo assalaamu aleykum wa raxmatullaahi wa barakaatu ginnaaw bi ñu santee suñu boroom subhaanahu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 ñoo ngi nuyu soppee almisbaax yépp kulim juum ñoo ngi doon waxtaane suñu tomb bi nga xamante ne mooy jokku mbokk asilatu raxim ginnaaw bi ñu ko laytaayalee tàmbali woon nañoo jàng yennat ci aaya yi nga xam ne dafa ñëw di wax ci rafetal jëme ci ak mbokk ma jotoon a indi ñaari aaya yoo xam ne ñaari yëpp ñu ngi ci suratul baqara borom bi subhanahu di ci soññee aaya ju njëkk ji muy fàttali kóllëre goo xam ne da koo fasoon ak bannu israil ci ne leen bu leen jaamu ku man waaye tegaloon ci ne leen na ngeen rafetal jëme ci seeni jur na ngeen rafetal jëme ci seeni jege ñaale na ngeen rafetal jëme ci jirim yi na ngeen rafetal jëme ci miskin yi waaye dee leen wax lu baax ci nit ñi waaw leen wax wax ju rafet ci nit ñi door a wax nag taxawal julli ak joxe asaka geneen aaya ji ca des mu ne woon laysal birra wane woon ne ak mbaax kese-kese du julli ak mbaax kese-kese du jublu penku wala jublu sowu déedéet ak mbaax kese-kese du jublu penku wala jublu sowu dafa mel ne maa ngi ci waxtaan ak suñu mbokkum daara Oustaz Ibrahim fay ci suñu jotaayu xamtu bi ñu génn mu di ma wax ne ma julli ak woor ak mboolem ibaadaat yooyu luy préparer jullit bi la loo xam ne da koy préparer maanaam da koy préparer ba mu mën a defar ay jikkoom da koy préparer ba mu mën a jaxasoog nit ñi da koy préparer ba mu mën a baax waaye yam ca képp doyut moo tax inna salaata la ca topp mooy tanha anil fahshaai wal munkari mooy julli boo jëlee koor ki nga xam ne dafa woor ñu ne ko bul bul sa làmmiñ wi a woor na sa cëri woor ci wax wax ju ñaaw ak di ko jëf ndax laallakum tattaqun ki nga xam ne dafa dem aji ñu wax ko loolu moom itam ne ko falaa rafasa wala fusuuxa wala jidaala fil xajj bi joxe asaka jotee borom bi wax ne xus min amwalihim sadaqa waaye lam ca teg mooy tutaxiruhum wa tuzakkihim biha kon jaamu yàlla yi jublu penkook julleeg ya ca aju koor ak ya ca aju asaka ak ca aju yooyu yëpp day waajal jullit bi ngir jullit bi mën a baax ñu ne ko a ah, yàlla jublu euh, euh, xibalal masriq wal maghrib bu dee loolu dong taxut mu doon albirra lan mooy albirra nag léegi lan mooy ak mbaax dëgg-dëgg waxoon naa la ko mu ne man amana billahi koo xam ne gëm na yàlla wal yawmil axiri gëm bis bu mujj ba foofu la ñuy rawantee yawmal xiyaamatil akbar gëm malaayika yi gëm téere yi gëm yonent yi di jox alal ñi ko bëgg di jox alal ji nga xamante ne doyalu ci waaye di dimbali ñi ko jege di dimbali jirim yi ak miskin yi étranger yi laajkat yi jaam ñi bu noppee muy taxawal julli di joxe asaka di matal kóllëre di muñ di muñ yàlla nee na ulaika lasina sadaqu wa ulaika humul muttaquun gaa yii dey ñooy ñi nga xam ne ñoo dëggal waaye gaa yi ñooy dëgg dëgg ñi baax dëgg dëgg ñi baax mooy ñii nga xamante ne dañoo bàyyi xel seen borom bàyyi xel seen morominit muy mbokk gi jiital ci say wayjur waaye teg ci ña nga bokkal ñépp kon rafetal jëme ci ak mbokk lu am solo la tomb boobu ci lañu nekkoon ay bis gi bari na ay xew-xew yu fi xew yoo xam ne am na ci yoo xam ne laal diine ndax ñi ngi waxtaane lu jëm ci wàllu muuraay maanaam muuraayu jigéen muuraayu jigéen ni ngeen ko xame ñu xame ko noonu te yàggu koo wax du suwaa boo xam ne nit ki da koy defal boppam rek ñu ne muuraay suwaa la ci jigéen déedéet waaye muuraay farata la farata la boo demee ci suratul ahzab du sori aaya 59 borom bee ngi wax yonente bi alayhi salaatu wasalaam yaa ayuha nabiyu xulli azwaajika wa banaatika wa nisaa'il mu'miniina yudniina alayhinna min jalaabibihinna daal di wax ne dalika adnaa an yuxrafna falaa yuxsayna mbokk yi loolu wërta doon débat ci penc mi xaw ma man penc la ñuy war a amee loolu mu doon débat bu ñu animé kenn ku nekk di ci wax waaye du wërta doon débat ci penc mi penc moo xam ne ñu ko dëkkee ñi ci ëpp ay jullit lañ xam naa bu ñu takkoo am fullaak fayda ci ni ñu war a doxale ci seenu jaamu yàlla ak yi ca aju nit mënta dox seen digganteek loolu maanaam ci wàllu njàngukaay yi bu fekkente ne jàngukaay yi nekk ci réew mi ña fa ëpp ci réew ma dëkke ko di ay jullit mel nañ nañ war a mel ba bu ñu leen xañee seen diine ñu bàyyi ko fa léegi tey ñu dabu ji leen jàmm na ñooyu léegi nag ki ci mujjee yëkkati kàddu di premier ministre kilifa la ci institution ñi ci yëkkati kàddu te féete ci geneen wàll ci diine ji dañ leen di tudd di tudd baatu kilifa di ko ci taf ñoom it ñu doon ay kilifa ca lañ gëm ñoom ñaar ñi nag waruñoo jàkkaarloo ci pénc mu mel ni suñum pénc ndax jamono da ko dul laaj te daa nekk débat boo xamante ne li muy yàq mën naa bari li muy yàq mën naa bari waaye daal li wér te wóor mooy euh, jot na sëkk euh, ñu xoolaat bu baax yi nga xam ne moo tënk ak yi nga xam ne moom lañ bokk ak ni nga xam ne noonu lañ ci war a taxawee mbokk yi ci wàllu rafetal ak jokk ak mbokk buñ delluwaatee ci alquranul karim ci suratul bàqara borom bi subxanahu wa taala daf ñu faa indilaat jeneen aaya joo xam ne daa wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko danañ la laaj danañ la laaj euh, lan lañ war a dépenser maanaam lan lañ war a joxe wala kan lañ war a jox kan lañ war jox waxoon naa ne li rafetalu mbokk euh, joxe alal bokk na ci dimbule koo tane te dimbali ko rafet na waaye dimbali sa mbokk. da ngay am tiyaabay jokk mbokk ba noppi am yi dimbulee tabaat bi noonu la tudd mooy bokk ñoo bokk liñ am borom bi wax ne yasaluunaka maatha yunfiquuna qul maa anfaqtum min xayrin fa lilwalidayni wal aqrabina wal yataama wal masaakina wabni sabili wa ma tafaalu min xayrin fa inna allaha bihi alim est-ce que borom bi subhanahu wa taala nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam danañ la laaj ba noppi wax ko ne ko buñ la laajee tontul di danañ la laaj danañ la laaj li ñu joxe kuñ ko war a jox danañ la laaj lan lañ war a joxe am na foofu foo xamante ne xulil afu la yàlla tontu ne ko aw des waaw ku desal mën nga caa joxe waaye fii mu ne ko danañ la laaj ku ñu war a jox mel ne ko loolu wala ci lu ñu war a dépensé mu ne ko lépp loo xam ne dépensé nañ ko aw yiw la ci aw yiw waaye ñam ci jiital ci lim ba mooy waaliday ni la ma waxoon léegi li ngay jox sa ñaari wayjur waaye li ngay jox say mbokk waaw li ngay jox say mbokk alquran xoola wax yinu borom bi subhanahu wa taala maanaam day wax ñaari way jur yi seppi leen teg ne daal wax mbokk gi ndax ñoom ñoo la boole ci mbokk gi sa jur yi ñoo la boole fi nga bokk ci ñoom nga tàmbulee di woy sama baay di woy sama yaay hmm? mu jeex sa baay boobu diwoo ko jur bu ko defee nga ne sama baay moog diw ñoo bokk baay sama baay di woy yaayam muy néegum ndayam ak néegum baayam ñaar daal di déparé foofu ñaar déparé fii ci sa yaay léeg-léeg nga dox tuuti sa yaay sa baay daje waaw léeg dox tuuti sa yaay sa baay daje daal ne ñun ñaar ñoo bokk nangam léeg-léeg seenu mbokk mën naa soree waaye kon yàlla tànnal na la aw askan wu yaatu rek loolu lay tegtale lool lay tegtale way jur woowu nag rafetal jim ci moom sa kemtulaayal kàttan buy dundu loo man ci teraanga defal ko ko su faatoo loo man ci ñaan defal ko ko loo man ci saraxe defal ko ko loo man ci lu baax defal ko ko am na ñoo xam ne ci jotaayu baax bii lañ jaare dégg ñuy waxtaane sadaxa jaariya ñu jaar ci ñun ba gasal seen wajur yi ay ay teen waaw teen yooye ba àdduna di tukki ñañ ko defal ñu koy jariñoo ñu ngi ca jariñoo toq ndox buñ ci naan mu doon aw yiw fekk seen waajur ya fañ tëdd kon ñooñaa ngay rafetal jëme ci seen waajur yi ñoom soxna madame Dieng yal na yàlla fay leen soxna maam jaara faal ak ñu baree baree bari ñoo xamante ne jaarale nañ seeni eh, sadaxa jaariya mu jaar ci ñun yasaluunaka maa saa yunfiquun xul an anfaqtum min xayrin mu ne ko lan falil ni sa ñaari jur sa ñaari way jur gaawal ci ñoom gaawal ci ñoom ko xam ne yaa ngi dund say wayjur di dund sa yaay ak sa baay yow mën ngaa am aljanna sa àjjanaa ngi nii jàkkaarloog yow gaawal wut àjjana ci ñoom bala ñoo dem gaawal wut àjjana ci ñoom bala ñoo dem bu fi nekk mukk di ànd ku lay xeebal say jur wala yow nga dem ba xeeb sa way jur te loolu tàmbali naa am ci ci ndaw ñi tàmbali naa am ci ndaw ñi ñu bari ci ndaw ñi léeg-léeg ñu xeeb seeni way jur xam da ngay xeeb sa way jur ba da ngay mujj doo ko laaj xalaat da ngay mujj doo waxtaan ak moom moom boo jàppee ne domaine bi yaa ko gën a maîtriser moom temps am wéy na considération bi nga koy jox bay waxtaan ak moom ci mbir mi rek yàlla xam na ne day sedd xolam lool te loolu aw yiw la aw yiw la loolu lañ daan loolu loolu lañ daan def waaw xul ma anfaqtum min xayrin mu ne falil walidayni moo tax eh, nit ki daan am saleeram bu njëkk ñëw ci yaayam ne ko fayeeku na mu jàpp ci loxoom ànd ak moom ñëw ci baayam mu yëkkati salaire bi tekki loxo baayam mu ñaanal ko mu ñaanal ko wéeruwaay moom bi gën a rëy te nit di ko wéeru mooy eh, wéeru ci ay way waajuram waaw waajur ya nag ñoom it nañ xool fa ñuy wéeru bu ko defee kilifteef gi foofu lay tàmbulee borom bi subxanahu wa taala ci jeneen aay ju nuroog ji goo xam ne itam ak mbokk da caa nekk tey mu dem ca sóoratu nisaa yi indi naa ñetti aaya yoo xam ne yëpp ci sóoratul bàqara la nekk ñetti aaya yëpp daa am baatu sil xurba muy jege yi waaye daa am waalidayni muy ñaari wayjur ñetti aaya yépp daa am wal yataama wal masaakiin wabna sabil aay njëkk ji rek moo am wal masaakin mu tekke wa xuulu linnaasi xusna yàlla nee na dee leen wax ak nit ñi wax ju rafet waaw leen wax ak nit ñi wax ju rafet wax dëgg du te wax ja rafet wax nit dëgg tegtaliwul ne wax ji daa war a ñaaw aay jooju suñ boroom jëfandikoo na ci baatu rafet ñaari yoon wa nanga rafetal jëme ci sa ñaari wayjur wa bil walidayni ihsaanan waaye wa xuulu linnaasi xusnan na nga wax ak nit ñi wax ju rafet mooy na nga rafetal jëme ci nit ñet waaw na nga rafetal jëme ci nit ñëpp door a wax julli ak ya ca aju nga ne ah, julli am na solo de mu ne la waaye nag moom dong doyut walakin al birra man amana billahi muy aaya ji ma jàngoon léegi ba aaya jooju jeex aaya jëneen ji ci topp te ma mujje koo jàng léegi ci suratul baqara bon yasaluunaka maasa yunfiquuna xul ma anfaxtum min xayrin fa lil walidayni aqrabina wal yataama wal masaakiini wabna sabiili wa ma tafaalu min xayrin fa inna allaha bihi alim allahu akbar yàlla nee na lépp lu ngeen def ci yiw yëg naa ko waaw lu ngeen def ci lu baax rek nee na xam naa ko yëg naa ko waaw du wax nag bu ngeen defee safaan ba yëg naa ko du ko wax fii tey ndax day soññee ci lu baax ci wàllu joxe lay wax nee na lépp lu ngeen joxe ci biirum néeg yaa kan koy jox dong ak yàlla yàlla nee na man yëg naa ko de yëg naa ko waaw bu la neexee man ngaa doy loolu yëg naa ko yëg naa ko wa ma tafaalu xayrin fa inna allaha bihi alim loo def ci lu rafet ci biir mbokk gi yàlla nee na yëg naa ko te léeg-léeg mbokk am koo xam ne nit ñi mën nañoo toog di ko sikkal te yàlla xam na ne dal gi am nii ba nga mën koo sikkal moo ko def moo ko def am ñoo xamante ne guddi la ñuy daan ñëw ci seen biir kër mbokk ne yokk wàcceel ko loo xam ne ab dund la léeg muy saakub ceeb léeg-léeg muy dara tey jii bi loolu euh, nekkatul ñu nekk ci dëkk bu wër nekk dëkk ci menn penc nit ki mën a dimbali nit ba noppi te nit ñi duñ yëg ne moo ko dimbali waaw léeg-léeg ci biiru mbokk loolu am maay gis ku toog di wax ci mbokki jàmbur naan diw de du dimbali ay mbokkam yow loolu kenn waru koo wax waaw ñu bokk seenu mbokk moom waxal wax ju rafet rek ndax la muy def yëgoo ko te yàlla yëg na ko waaw la muy def yow yëgoo te yàlla yëg na ko kon man nga cee bañ a bàkkaar man nga cee bañ a bàkkaar wa ma tafaalu min xayrin fa inna allaha bihi alim yàlla nee na yëg naa ko aaya jeneen ji ci suratul baqara mook aaya yi ñoo nuroo maana tey daa tàmbulee ci wa abudullaha wala tusriku bihi shay'a borom bi subhanahu wa nee na ñu jaamu ko waaye nee na buñ ko bokkaale ak dara bu leen ma bokkaale ak dara kennal leen ma waay kennal leen ma waxoon naa la ne sama borom subhanahu wa taala ko mënoon a wax danga naan boppam da koo ñor moom dafa bëgg nga yëg ko dafa bëgg ñu yëg ko ndax daa yëgu dafa bëgg ñu màggal ko ndax dafa màgg dafa bëgg ñu yëkkati ko ndax dafa kawe daa bëgg ñu kennal ko ndax moom day kenn waaw daa bëgg ñu wéeru ci moom ndax daa àttan daa àttan waaw woykat ba ne kuy wéeru day seeti ginnaawu borom dayoya waaw kuy wéeru day seeti ginnaawu borom dayoya waaw dayo bu mag ba nag mooy borom bi subhanahu wa moo tax fa isaa azamta fa tawakkal ala waaye wa man yatawakkal ala allahi fa xasbu waaw jeex na ku wéeru ci man ma doy la sëkk ku wéeru ci man ma doy la sëkk fii tey mu ne na ngeen ma déggal mooy na ngeen ma jaamu bu ma bokkaale kenn daan na waaye nag na ngeen di rafetal jëme ci seen ñaari wayjur waaw na ngeen di rafetal jëme ci seen ñaari wayjur wabil walidayni ihsaanan wabil walidayni ihsaanan xam nga daa waxoon ca aaya jama jàngoon léegi eh, ca bind bale ci suratul baqara wa id aqasna mithaqa bani israila laa tacbuduuna illa allaha wabil walidayni ihsaanan yàlla maa fasante kóllëre ak waa banu Israil ne leen jaa bu leen jaamu ku dut man waaye na ngeen rafetal jëme ci seeni wayjur tey nag ci sóorub nisaa yi moo indi joo xam ne ñun la ko adressé directement tey ne bu leen jaamu ku dut man waabudullaha jaamu leen yàlla jaamu leen yàlla waabudullaha jaamu leen yàlla déggal leen ko ne leen mat kilifa ci lépp wala tusriku bi shay'an bu leen ko bokkaale wa bil walidayni ihsanan way jur yàlla waxul ñu jaamu ko waaw waaye dafa wax ne nanga rafetal jëme ci ñoom nanga rafetal jëme ci ñoom rafetal jëme ci ñoom ci worma rafetal jëme ci ñoom ci fonk leen rafetal jëme ci ñoom ci teral leen rafetal jëme ci ñoom ci nooy ci seen kanam rafetal jëme ci ñoom ci di wax ndànk ak ñoom waaw rafetal jëme ci ñoom ci fonkul leen li nga xam ne moom lañ bëgg li feeg ñu ngi lay sant loo xamante ne yàlla ànd na ci loola na nga ca gaaw buñ la loo xam ne yàlla andu ci bu leen ca topp waaye nag na rafetal wa saaxib xuma fi dunya mahrufa na nga fexe ba ni ngay doxalee ñoom seen mbiri àdduna na na doxalin wi rafet waaw doxal ñoom ci njekk yàlla nee na maay patron bi nag moo tax mu jiital boppam wa abudullaha ku may ñi indi ñëpp naan la fonk leen yëgal ne maa ci seen kaw fonk leen ci lépp lu ma farataal fonk leen ci lépp loo xam ne dagan na waaye lu tere nag bul wut ngërëmul nit ba kenn séen la ca waaw lu ma tere bul wut ngërëmul kum neex ba kenn séen la ca waabudullaha wala tusriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan na nga rafetal jëme ci say wayjur kon wayjur yi noonu ngay nekkee ñoom mu ñëw ci mbokk yi wabisil xurbaa ak say jege ñaale say jege ñaale mën nga koo tekkee mbokk gi mbokk gi say jege ñaale ñii yéen a bokk baay ñii yéen a bokk ndey ak baay ñii yéen a bokk ndey rek waaw kii baayam mag sa baaya bokk kii yaaya mag yaaya sa yaaya bokk léeg-léeg muy ab tuuru famille léeg muy ab tuuru famille nga ñëw am ku yor micro bi lim maam yi ba àgg ca at naanum fami ba da cay am ku mag koo xam ne ñaare moom la ñuy wax moom la ñuy askanale tuur bi waaw tuuru ñoom ñoom baay diw maam diw bu ko defee bu ñëwee dañuy dellu ca moom ñu daal di wàcc nag moo jur diw diw jur diw diw jur diw ba jur diw mii ci jotaay bi nga yëg ne kon yaag diw mi yéen a bokk loolu léeg muy lim ñoo xamut ba mu yàgg muy tudd ñoo xam ba mu yàgg mu tudd ku toog hmm. day tudd ñoo xamut ñu faatu bu yàgg ba mu yàgg mu tudd ñoo xam ñu fi nekkoon te faatu wala nga dégg leen ba mu yàgg mu tudd ku toog nga xam ne kon yaag kii yéen a bokk toog waaye yéen ñaar yéenay ànd ba àgg ci kële kooku ak mbokk la na ko fonk na ko fonk bul ko dagg mukk bul dagg mbokk gi wacc mbokk moom wax lu rafet dox jàmm ba noppi tey dimbulee loolooy rafetalu mbokk moo tax waxkat yi jàng wax te di wax ci penc mi wax ju rafet dañuy wax ne ñett yii di doxuk mbokk te di ko rafetal ñett yëpp benn amu ci karaw ndax nee nañ yàlla day bañ mbokk gi xajam waaw noonu lañ koy waxee ñoom ñoom fi mbaay ñu ne ban ban ñu ne tànk bi sa ndëggul tànk bi di dox ci suuf si amut karaw kon yàlla daa bëgg ngay dox ci mbokk gi lu rafet waaw dee ci dox aka wax lu rafet ñu ne sa diggu loxo bi amul karaw borom bi daa bëgg ngay joxe loxo bi mooy joxe waaw léegi waxuma joxe waaye bu loxo bi dagg mbokk gi bu loxo bi ngàbbu paaka di dagg mbokk gi di bind lu ñaaw ci mbokk gi e, di bës ay audio e, yu ñaaw ci mbokk gi déedéet moo tax mu teg ci ñetteel bi muy làmmiñ wi làmmiñ amul karaw ndax borom bi daa bëgg ñuy wax lu rafet ci mbokk gi mbokkuk léegi jafe-jafe yi ci gën a am wax a koy indi wax wax wax wax wax ju ñaaw wala loo xam ne xewoon na ca ñaari maam yi jubawut woon nga gis koo xam ne noppi na ngir nettali ko doomam tey waaw diw de baaxut ndax yaaye ba ma defoon nangam yéen loola seen jamono la woon yàlla dogal na wéy na baalante leen te ngeen dem te nga bañ koo jox nag muy doon am mer moo xamante ne day wéy loolu amul njariñ loolu amul njariñ kon wabisil xurba mbokk gi mbokk gi rafetalal jëm ci ñoom rafetalal jëm ci ñoom waxuñ la nga jaamu leen waaye na rafetal jëme ci ñoom waaw ñoom nag buñ la santaas ndax ñun suñu mbokk léeg ñuy santaas léeg-léeg ci biir famille bi am koo xam ne yàlla da koo may teraanga dañ koy santaas dañ koy teg yu diis dañ koy teg yu diis day daw bay bëgg a dee waaw waaye euh, buy def te yàlla tax dana noppalu léeg-léeg muy def te yàlla tax ba noppi ñu koy santaas santaas yi dafa metti ci biir famille yi waaw moo tax ku la bëgg a santaas bañal nag ku lu bëgg santaas bañal moom bu moom du doon rakk du doon mag waaw du doon rakk du doon mag na ku nekk nekk ci farataam ba noppi ngeen di rafetal ndax yàlla rafetal la wax rafetal la wax wa bil walidayni ihsaanan wa bisil qurba ak rafetal jëme ci jege ñaale yi rafetal jëme ci néew ji doole yi moo tax kon day mel ne joxe joxe tax wal masaakiin ak ñi nga xam ne ñooy miskiin yi yëmut ci loolu mu daal dugal dëkkandoo yi ndax sa dëkkandoo yi say mbokk lañ ñooy sa mbokk yi la gën a jege sax moo tax mu ne wal jaari sil xurba sa dëkkandoo yi nga xam ne say mbokk lañ day koo xam ne day nekk sa dëkkandoo day nekk sa mbokk ba pare ngeen dëkk waaw ñun boo ñemee njaareem boo ñëwee kër gu mag da ngay ñëw fuñ naan looyeen nga xam ne ñii ñoo dëkk waaye ñoom ñi ñëpp ay mbokk lañ nga xam ne nit ki daa boole doon sa mbokk ba pare doon sa dëkkandoo daa boole doon sa mbokk doon sa dëkkandoo ba noppi doon sa mbokk seen kër yee jélloo wala moo jàkkaarloo wala ñeenti kër ci dox ba noppi yéen a bokk mën naa am yéen a bokk baay wala seen baay ya bokk baay wala sa doomi bàjjan la wala sa doomi ñu jaay la ñu ne kon am nga ñaari àq àqi dëkkandoo ji ak àqi mbokk gi àqi dëkkandoo gi ak àqi mbokk gi dëkkandoo bunt bu yaatu la boo xam ne dinañ ci dellu siwaat insha allahu taala ñoo ngi leen di jaajëfal ci topp gi ak ànd gi ci almisbah